di sant yalla bu baax di euh sunu xarit bi di sunu wëlëri bi di euh, président Serigne Mboup euh, mom and ak euh, sunu mbokk mi di Serigne Ahmed Saloum jeng te ngeen xam ko ñep euh muy ñaareelu yoon bu mu fi ñew ci dir bu gatt moy woné ne kon limuy dox ñor nako ndax ku xam Serigne bou xam ne nitu darala, la ku xam Serigne bou xam ne produit wu dara la te produit daara la boo xam ne daara euh, sawar na ci fësal ko wone ko ndax wone na ni kon daara day defar nit te du moom dong am na ñeneen ñoo xam ne fi la ñu jaar euh, loolu mo waraloon mu xamle woon ne bi mu ñëwee yëg li fi xew ah ba ba pare dana wajal nag ngir ñëw indi barkeelu bopam, te lolu gis nañ ko yëg nañ ko te xam nañ ne njariñ ci surtout ci jamono bi nu dafa mel ne ñu euh dañoo déggul lu gémmiñu président Wolis président waxul né yëf yi jeexna euh limu wax moy ñu moytu te def farata yi nga xamné buñ ko deful mu faagaagal ñu faagaagal réew mi. ce n'est pas parce que nee nañ sauver économie bi que nañ né jeexna ba légui buñ doon jappalé ñenn nañ ko bàyyi kon boobaa dafay mel ne dañ ko doon def pour la forme ou dañ ko doon def pour des raisons de communication ou dañ ko doon def pour des raisons politiques te defuñu ko pour yegg ba ci benn moment ñu ni sonn nañu donc léegi nan taxaw nañu porox ndollu ci wax bi président wax pour na léegi jeex na jeexul de comme jeexul nag dafa am lépp loo xam ne farata dañ ci war a taxaw lii nag dafa bokk ci farata yooyu. fii dama fi am wóllëre muy Ahmed Saloum Dieng ñu bokk daara ji ma fi mbokk taalibe Eh, muy maire Talla Sylla nekkoon sama dekkando eh, nek sama xarit eh, kéro ñu jaar fi di ziaré gi Cheikh Ahmad Tidiane Seck ma fekk fi lu yéme lu doy war mu ne ma depuis Covid bi amé ba légui ben daara gennul lu mat quinze mille taalibe leen di dundal loolu nak ñun suma reculé 40 ans en arrière rek ci taalibe yooyu la bokkon te xamna luy fexé ku xif nga jox ko mu lek kon mu nek lo xam ni def ma yé moo taxit euh ma ñew andi sama wal wàll wi c'est symbolique ab tambali la andi ko 2 tonnes ceeb ak 500000 pour jappelé ko ci liggéey bi di ñaax opérateur économique yépp yi nekk Thiès ñu jàppale ko euh, ànd ko président chambre de commerce fi nekk Ablaye Diop dama ko ko yéex a wax waaye kon mu ñëw ànd ko tamit ak maire ci Sénégal jël exemple ci le maire Talla Sylla koo xam dafa bàyyi léppam ah pour au service de la nation surtout njëkk ko ci tout tànk yi mooy waa daara yi maire Thiès bu jógee ne moom li muy njëkk jël priorité numéro un mooy jël taalibe yi dundal leen loolu euh, tuyaaba jim ci am sax xam naa ne xam na ko waaye ñim ci laawale ñeneen am ci yeneen tuyaaba sax daanaka rek yóbbu na Sénégal gépp àjjana loolu man man xam naa ko ndax dañ ne jox ben tib ku xif nga jox ko ben tib mo gën tabax junniy jakk te ben jakk rek yóbbu na ay million nit aljana waxantuma la nga tegale lu mat ki lu mat lu jégué ñett wër bis bu nekk nga dundal leen. problème mu daara yi ak lima gis euh maire bi tal ci la def ko buntu le pour que problème mu daara yi état bi jël budget bobu dool ko ci maire yi pour ñu régler problème bobu définitivement ndax. Euh, ni ñuy toppatoo ki jàng ci tubaab bi noonu lañ war a toppatoo ku jàng ci daara yi covid bi développé fenn ci benn daara développé fenn ci benn càkk kon yàlla nga koy aar nañ ko ni sutura sos yàlla defal daara yi léeg-léeg moom ay dérive waaye lu bon bon liñ tabax bari na ndax euh, Cheikh Alaaji euh, Malick Sy Serigne Touba Cheikhul Khadim ñëpp ñu ñi ñëpp daaraa ñu tabax